boole jóg nañu boole jóg nañu mais dina xam ne jóg nañu ma ne tënk nañ ko mu génn et puis ma ko ma jugee ma ne tënk nañ ko mu génn et puis ma ko ma jugee ma ne nga seey et puis ma toog taskuut ñëw na taskuut ñëw na tey moo gën a waaye ba taskuut ñëw na ànd ak caution doon na musu boo xamante si ni musu bu am solo la mooy état yi nga xamante si ni ñoo ñëw trois ans sàngee mel ni écrou pépinière et puis ba tolloon jugee mel ni tollu moom moo nekk ci kanam discours ñëw en deuxième portion tollu moo nekk ci kanam discours ñëw en deuxième portion jugee kii bi nga xamante ne mooy école Moktoom jëlaat naa bi nga xamante ne mooy 3 200 bi ñu romb benn bu ñëwee ñaareel tey ci journée bi nga xamante ne mooy région africaine waaye daaw lañ nga xam ne mooy Jules Fama Ndiaye en triple arras taw lañ ko xamal ne si nii moom a jàpp bàyyi mu ñëw jege si Zulfa ma jaay ci aras bi waaye ndax loolu léegi dafa si mu koy solo faal dama ñëw romb dañuy romb teelul bu ñu ñëwee teelul teelul ba li fee nga xamante si nii moo jàpp bàyyi daw nañ ko mu avancé Zulfa ma jaay avancé na Scoop avancé na mu dem ci gannaaw bi ñu fa fa gaañ gannaaw gaañ gaañ bi bi gannaaw gaañ bi bi Balik ke Khaman Sima Lom Dulu Mampu yang capung baik juga Kalau benar Khaman Sima Juga kering Perbulan satu jam Dawan Ajak ada tu Ajak ada tu Lepas dulu Ajak ada tu Lepas ada tu Poso Ajak ada tu Dua puluh per alih Khalid dunia Kata Poso Beberapa tu Baik Khaman Sima Lom Dulu Mampu Ajak ada tu Lom Dulu lalu ke atas kantor dalam lima puluh tahun kefahaman di sini membaca pemain melalui video terpunya dari Twitter hanya ada orang yang berbicara alim mengurus dia kerja apa kita berbicara dengan betul terpunya dengan orang balik balik hanya ada orang begini dia besar sekali dia berhadap si mama motor begini dia dalam lima puluh dalam hari dalam kefahaman membaca pemain zone Fama Ndiaye bi nga à cinquième position ñoom ñii di ñëw te bu ñëwee dañuy tëwal donc ñii di ñëw premier gàddaadoo deuxième nit nga xamante si ni mooy eh, expérience émergence mooy deuxième émergence émergence mooy deuxième jërëjëf mashallah da wa'azi a jata da mun da sai